donte amuñu ko sax nekkul candidat li mu def day dëggal ne ñun li ñu day fësal ne ñun li ñu waxoon fi ñu ko wékkoon foofu la maanaam dañoo gisoon ay capacité am gis qualité am te démb wane na ne dafa nekk nit ka nga xamante ne dafa fonk kàddoom nekk nit de euh, nekk une compétence nekk une valeur sûre de la démocratie loolu lañ gisoon moo tax ñu taamu ko donte que nangu la nekk su candidat bi mais suñu àndandoog moom jeexul ñu ngi continuer di diñ ko jàppale ba mu jeexal mandaam euh, en vingt 2024 euh, ñenn ñi nag am na aussi ñu am mbetteel ndax yaakaaroon nañ ne moom day dem ndax yoon may na ko mu dem mais nag euh, àddina noonu la ñii dañuy gisee nii ñii gisee nii mais li ci gën a am solo mooy ñun ñëpp a mànkoo félicité ku ci décision bi mu jël fas yéene nag waxtaan suñu biir déglu ko mu joxe ay orientation ñu mën